taximan laa quoi samay pièces oto lañ sàcc barki démb benn client moo ko sàcc. client bi daf ma arrêté bi ma wàccee pont Sénégal 92 ma wàccee mu arrêté ma pont de l'émergence quoi côté kii Yacine Thiandoum fa la ma arrêté bi ma arrêté ñu waxaale mu ne dafa ànd ak ñaari tubaab mais ñu ngi ci benn hôtel bu nekk ginnaaw na bi suker doon naa fa dégg nag benn benn doon naa fa dégg benn auberge mais xaw ma ko comprendre nga. bi ñu waxaale ba jubóo mu ne ma dañoo am ñetti jémbe ak ñaari saak est-ce dina xaj ci maal bi ma ne ko non wóoruma parce que maal bi na xaw na yaat mu ne ma bu ñu waxaale ba jubóo est-ce mën nañ dem essayer ma ne ko d'accord amul problème. léegi bi ñuy kiiwee ma def demi tour yéeg pont bi pour dem jaari côté mairie Padois bi mu ne ma noo man fii xamee ma ko fii boo demee ba rond foofu laa ko xamee ma ne ko noo boo jaaree nii di nga génne rabi su di nga génne rabi sukeer ci la génnee 2000 francs jox ma ne ma pour ma wecc ko xam naa boobu bëggoon na xam sama xaalis fa la nekk après ma génnee sama pochette bi sama pochette mu ngi sama booru frein bi fi ko pour wecc ko ñaari ma c'est que nekk nii paa laa bëggoon may mille quoi parce que temps yi daf may ci bagage yi ma dem ba koy wecc wala nga bàyyi ma jox ko deux mille parce que deux mille ak mille francs benn la ma ne après man tam ma dugalaat sama xaalis sama pochette xam naa boobu bëggoon na xam sama kii fa la nekk sama boîte à gants bi quoi fa laa defoon sama pièces yi léegi bi ñu demee ba jub Nabi Siker mu ne ma voilà léegi retrouvé naa koñ bi lee ngay jaar mais foofu impasse la bi ñu duggee dem ba au fond am na benn immeuble bu ngand bu fa nekk gudd quoi mu ne ma hôtel baa ngi nii quoi léegi xaaral ma génnee bagage yi ñu xool ndax xaj na ci maal bi après ci laay def demi tour mu ne xaaral ma génne bagage le temps ngay def demi tour après mu génn bi mu génnee dem man nag même pas une minute am benn taxi bu taxaw bi taxi bi taxaw man bi taxi bi taxaw di wër weccit ñaari mille francs ne ko kaa ci la ci laa ubbi sama boîte à gants pour wecc ko gis ni waa ji yóbbu na sama poset après ci laa daw jaar noonu ñu ne gars yi fii yàgg nañ ko def parce que même bu ñu jëlee taxi bañ ko fay sax dañu naan aller retour lañ jël bu ñëwee ba fii nii damay jël bagage affaire yooyu bu ñu wàccee jaar ni génn ci tali bi. man nag xaalis bi sax intéressé wu ma quoi xaalis bi maanaam boo xoolee li ma liggéeyoon jour boobu peut-être ay 30 bi ma xaymaa daal ëpp na 150 moom mais matul 180 000 mais ëpp na 150 mais sama pièces ñoo ma ci gën a intéressé parce que sama carte grise ci la boq sama permis ci la boq sama livret sama droit de stationnement ak sama beneen oto boo xamante ni benn 309 la carte grise bi ak licence bi ci la nekk ak sama pièce d'identité yooyu daal ñoo ma ci gën a kii quoi xam naa nag peut-être xaalis bi la soxla mais bu kiiwee xaalis bi man na ma dimbali ku gis pièce yi quoi man mu jàppal ma si même sama tur la nekk El Hadj Sow El Hadj Sow pièce taxi yëpp sama la nekk. DK 88 46 Y yooyu yëpp sama tur la nekk mais dafa am yeneen pièces taxi yoo xamante ne yooyu man maa ko moom yooyu tamit carte grise bi mu ngi ci woon ak licence bi léegi nag c'est juste pour ma dénoncer pour sama mbokk taximaani quoi ñu bàyyi ci xel ñu bàyyi xel ci yu mel noonu quoi man foogeewu ma ko woon quoi wax dëgg faale yàgg naa taxi yàgg naa ci kaw tali mais lii mu may soog arrivé